waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05.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 mu ne noonu rek lay mën a demee. mu ne xamuñu dara lu dul diine. mu ne xamuñu dara lu dul jikko ju baax. mu ne kon doxin wi rafet rek lañ ci yóbbu. nee na mi ngi ciy sant bu baax a baax. mu ne di gën a ñaan bu baax a baax. mu ne tawféex rek. mu ne suñ borom gàttanuñu ak tawféex mu ne ba lépp lépp lépp yéwén tabarkeel dara lu ko tee mën a am amul. mu ne dara lu ko tee mën a am amul ci àdduna. mu ne lu mën a nekk la. yàlla mooy ndax yàlla mooy def mooy dindi. moo ñu gën a xam suñu bopp. mu ne ndax moo ñu gën a xam suñu bopp. moo ñu gën ci suñu bopp. moo ñu mu ne noonu rek la demee. jërë ngeen jëf mu ne leen mi ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax. mu ne xolam seet na guy ci taxawaay bi. ak doxin wi mu ne mi ngi ñaan bu baax a baax bisimilah na ñëpp tàllal ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien.